on ci sa kanam. Mhm. mais boobaak tey guy gi ci lu mu ne. waaw Pape Aline comme nu yow damay santaat yàlla rek. Mhm. parce que man moom xam naa chaque jour. Euh, damay gën di sant yàlla parce que boo seetloo samay jaar-jaar ñi may jaar-jaar mhm. euh, tey li tax plateau bi sax yàlla def ko ni du hasard yow su ma su ma nit nga yow loolu dafa boole mooy yar sa yarute ak sa sa sa gore moo ñu boole moo tax chaque jour boo moo émission damay sawar pour wax ak yow parce que dañoo bokk qualité fokk yóbbu ñu beneen bi ki ñu boole muy moo Anta mhm. daf ma yàgg topp xam ci man lu bari jour bi mu njëkkee ñëw di ma samp micro di waxtaan ak man sama saal mhm. dama ne booy moom mooy kan boobu est-ce que bu ñu ma boole di ma wax di ma wax di ma wax ba date bi da wax heure bi. date bi beneen bi làmbaloog. waaw guddi gum guddi guñ guñ daan bëre bapat mhm. day indi mbërëm toog nii. ma ma ko dëngal tànk yi tamit ngi toog. kon lu mu wax ci kon plateau bi tey. Mhm. kenn ku ne mën a wax ci man. beneen bi mooy euh, làmb euh, euh, ak forme ak ñàkk forme ñu ànd. Mhm. tey nga nekk suuba nga yàlla lu lu ci nekk rek. loolu ci bind. man bi may ñëw ci làmb dama ñëw teela a sotti. dafa naa dama ñëw li gars yi doon def ci ay ay at mhm. man ci benn benn année laa ko def man maa tegale benn année bëre sept combat sept combat laa bërendoo sept victoire année boobu laa yéeg parce que dama doon toog di dégg yëkki ni naan euh, damay damay bëgg numéro tu samay combat waaw pour am man ma jàpp loolu man it sëñ Modou Niang saa moo woowee rek chaque dimanche rek ma dem bëri ji mhm. pour li yëkki doon wax te te comme que man dama bëgg dem naa xool ci mbër yu mag yi mhm. def ko suma référence ci moom ni muy doxee yàlla dimbali ma nag samay morom yi ma moromul yëpp kenn ku ne bàyyi nga ma xel te kenn ku ne ba ma am ak yow tàkkusaan yàlla may na ma ci yow ndam léegi nag yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen di jóg te man comme xam man bañkat laa am na yoo xam ci des fois bu ma dalee ci biir làmb rek dama obligé naan damay dem bëri ji bëraal moom mais bu guy gi ñëwee rek di nga ne wow oh, yaa quelque chose kii di guy gi loolu moom may gën a dimbali man nag baba nangu ma loolu de nangu woon xaar xaar xaar bu fekkoon tey. Mhm. damay bëre combat ñëw jekk ñëw daanu nga ne waaw mais bu guy gi ñëwee tey bu waree daanu wala bu guy gi ñëwee tey di ni guy gi muy def feebar. Mhm. léegi li indi feebar boobu booy seet sama ñaari combat la ñetti komba mhm. damay nekk ci combat mu metti doo gis kenn nga def ci plus de millions yi ñu la fay nga def ci xaaj bi léegi boo waree renvoyer combat bi du am ku la jàppale da ngay obliger rek maintenir sa contrat. dem bëri ci parce que dafa ñoo xam tey dañu bëgg di la gololoo. wala nga leen di woo wala ñu naan guy gee fi jaar wala ñu naan te man nekkuma ci yooyu li ma fay ci laay pare. Mhm. man nii personne kuy jàpp sama combat. pour dul suma yaay war a saal comme ni ma koy waxee te li ñu seq maa moom ay combat. Mhm. doomam la suma yaay la. moom xam na man xam naa waa kër gi xam na. à part loolu amul kuy ñëw naan maa jënd samay billet maa jënd samay car maa def samay regroupement maa jox booy ñu dem stade. Mhm. man naa sagal sama nit nag mun nga wax man la diw nàngam ak nangam nangam mais une mille personne ku toog naan guy gi wala lii lii maa def lii ci kombaam mm-hmm. kon nag loolu bu la dalee nga nekk ci yenn yenn difficulté yi gars yi duñ comprendre dafa baax nga expliquer mm-hmm. loolu tax nga dem di bëre ji des fois di am yenn baisse de forme yi mais daal li ma la a wax su ma karee li ci des mm-hmm. li ci des ma li ma desee mu néew mu bari du guy gi boo xam ni dina bëriwaat dara di ko metti parce que li la dese mu néew mu bëri ma ne ko ah waaw foofu de laa bëgg na ñëw parce que li tax mhm. waaw bëgg dafa bëri ah, foofu laa bëgg na ñëw de fa a ñëw bëgg dafa ah, bëri mhm. mhm. te boo daanoo daanowaat parlement champion la champion maa ngi doog a tegale deux défaites te bëri na mbër yi fi tegale six défaites sept défaites ba léegi moom laa doon maa ngi a tegale deux défaites koy doog a tege défaite fu mosaana daanu bu ñëwee day confirmer wallaay wala boobu lay gën a garaaw mais nag làmb ak loolu ànd comme que man maa ngi doog a toog Covid deux défaites te xam naa ne deux défaites am na ñoo xam ne man sama combat à la face ni man waratuma bëgg giñ ma bëgg. parce que man foog naa ne daan parce que man jekkoon naa. bi mu desee vingt jours que jekkoon naa jekkoon naa ba mën a bëri li ma bëri mais ni làmb ji ñëwee man ni mu ñëwaatee ji diggante man mënuma comprendre. ba boobu mënuloo ñëwaat ci diggante bi. ci diggante bi ni ni mu ñëwaatee feebar bi. ni mu ñëwaatee bi may gis guy gi naa leen guy gi feebar boobu ban genre feebar ma ñëw. non bi may gis wala xool bi ñu ñëwee fii bi ma ñëwee toog man bi ñu may gis. boobu ay mbokki Arafat dañ doon ci commentaire dañ ma ko wax daan na Arafat demal nga uti doole. mais boobu guy gi problème mu lan la amoon ba mu. jéem waaw boobu problème mu santé la. Mm-hmm. ak problème xam rek làmb ji léegi li fi xew mm-hmm. te man moom du ma nit da nga maa jàpp ci garage wala da nga liggéey wala lu ñëw suñu borom laa koy la mm. man sama yëpp suñu borom man bis moo daanee ba ci géew laa mën a gën a santaat suñu borom mm. man noonu laa mel musuma daanu jiñ ko nit te du ko mës a def nit parce que ñi ma daan daan xawma lu leen dal lu leen ci lan lañ nekk mm-hmm. jug naa nag faju naa maag samay mbokk alhamdulilah tous de bois maa ngi sant sama bopp maa ngi sumay entraînement mais man maa bëgg am loo xam ne damay leer lii lu wow lay doon su ma demee bu ma bëree damay yàlla may mendam ñu ngi lay ko waxee léegi bëgguma waaw bëgguma di bëre ñoo xam ne tey ñoo xam ne tey danaan guy gi kat fi mu jigéeg leeralu wal naa dama bëgg li may demaat mhm. man leer lii dama ci am ndam ci kàttan Seydina Mohamed muy lu wow loo xam ne du du du nekk lu mag quoi waaw te loolu ci man la des quoi. Mhm. man daal jàngat bi ma ci am mooy. papa gàddaay wala day rekkile. non gàddaay kañ ko bàyyi Balla Gaye wax naa ko barki dem man gàddaay moom ma dem gàddaay. wallaahi leer gàddaay moom. waaw mu doon jàngat bi ma ci am mooy que Lamblok. man sama xalaat quoi. waaw dëgg la dinaa dinaa d'accord ci benn côté ak ci li mu wax. parce que nit maanaam bu manqué moyen sax wala mu manqué xaalis sax wala mu mm-hmm. manqué. dépense boo ne ko jàkk. Mm-hmm. kanam day wax quoi. Mm-hmm. non si kanam day wax parce que am na si loo xam ne góor du wax lépp. mais man dama gëm ne carrière bi mu def ci làmb. dafa daan ama neex. ama neex gis nga ko ñim fi tegle gis nga ko ñim fi tegle guddi yi mu tool booy ba wala fi tegle ak bébé jéen mi ngi war a bëreeg caat daaw de faal ak ñaabu ndaw dafa daan zarko Sarko mbay guy gi la tegle Baye ma Njoon Aada fas Diène Kayre. Mhm. mi ngi war a bëree giri Bordeaux. dafa daan Siteu 29 avril 2018 Pape Abdou Fall ko tëggoon. Mhm. Siteu ñëw daan Papa dem ji bëri jeeg Modou Lo. Mhm. dafa daan Ama Balde. Ama Balde ko fa ñuy continuer di revancer ba Ama daan ko ci combat bi sifle woon naan sifle naa sifle wu ma. Ama mi ngi bëri jeeg Papa Sow bëri naag Modou Lo dem na ma ngay kan lay bëree jeeg France rek rek. kon instant il est dafa am revanche yoo xamante bi ni yow ñi nga daan kenn yaafuusu ci ñi nga daan nekkuñu ci ginnaaw ña ngi ca kanam. Mhm. mais lecture boobu boo ko jàngatee danga naan man nan laa war a mel. non mooy yoon. parce que kii bi mu bëree Boy Niang waaw 5 mars 2017 Boy Niang daan ko. Mhm. dana guy gi yàqu na pare na. Mhm. parce que boobu lay côté TNT bi la ci jógee affaire yooyu noonu. comprendre ñu ne yàqu na mu dem tukki combat am ak Siteu taxaw ñu ne foofu nooy na nepp bañ a dugg bu ko Siteu jàppee mu jeex. première bantamba bi ñu ko génne dama ne lii dañ ko monté. Mhm. lii moom du dëgg moom lii moom amul guy gi mii amul mu ñëw confirmer loolu mhm. mais si diggante bi combat mag rëg-rëg moo tax man dama d'accord ne mbër bu fekkee ne da nga feebar am lu lay metti dina ma jaral du ma jël avance Sénégal nag saraxatul mbuuma mhm. ñoom ku leen di yelwaan wala ku yuuxu wala ku tëdd yàlla tere si di ñëw nga naan damaa feebar doo mën a wax kooku lañ mën a dimbali mais dama gëm ne kuy investir ci champion xool fi mu jaar ak ñoom Basuka. Mhm. xool fi mu jaar ay ñoom Pape Mourlo. Mhm. xool fi mu jaar ak Mbaye Diouf xool fi mu jaar ñeneen ak ñeneen boo investir ci moom. li koy metti ñu def bisse bi totalité bi yëpp mu dem voyage gàddaay làmb ci li muy bañ a dégg. Mhm. ba mois de février wala ba mois de mars wala avril mu doog a ñëw. boo ko gisee di nga xam ne kii ëllëg. war naa mën a bëri ji ak roi des arènes. mais mbër boo paree bu bëri Papa mmh. Line. guy gi mais ma yokk la si benn calcul. ñu la warta daan dañ lay daan jom jee bëri rek. Mmh. waaye ah, xale bu ndaw la. Mmh. maa ñoo bokkoon benn. waaw kii suma grand la. ñëw naa marché Ndiarème ba taay seet si ko. goree ngi nii. bazal bi ànd ak bazal waaw ku nangoo xoslu. waaw mais nag mbër. mbër ak fas ak jéega yam ku leen judd lu mën a xam. kii wétal lay laaj dafa am ñoo xam ne laaj mais yàgg nañoo ànd maak moom muy suude géejawaay si mm-hmm. ponkali woo leen téléphone ñoom ñëpp lim si mën mënu ko yàgg naa wax mbër bàyyi li jàppalee mm-hmm. ma fekke mais moom day fàtte boppam fàtte boppam mooy dàq ñëpp ñu entre na ba pare nga ne maa ngi ñëw waaw ah. te looloo ko war moom moo fa daan jiitu gars yi dëgg nag damay gis moo am na clip léegi mm-hmm. oto bi kilim kër ga kilim. <laughs> Ah, non loolu la ma la du lu may métteeti muy bëri ma koy leer na. nee boo ko xoolee xam ne du koy jeexal. lambalo neexul mhm. bu ko yàlla mayee wér rek. Mhm. fu Balla Gaye pare waatee guy gi. lambalo moo koy gën yaram. Mhm. lambalo ndax guy gi. waaw kenn ëpp ko fa nag jàpp mu guy gi treize mbër la yanu làmbala ko dafa ko ko te sept victoire la tegale si benn année guy loolu neexut a dégg guy gi nag gone yéegu si njambaan ku dul Ada Fass te contre Ada Fass daa commencé tous ma dem sama yoon làmbala naa ne gisuma woon fee ci sax làmbala waaw ci biir bi fi mi fi nga xamante bi nii fi la xasane ci biir waaw surtout dara ci biir bi may wàcc waaw lañ dindi prévision bi ma sampal ah waaye nii la demee liiru jaan liiru jaan am na benn kii bu mu au passage di ko nuyu am na benn morceau bu mu doon def ni ci pare bi Mhm. lañ ma tafaloon may wàccu benn mbuus mais maanaam man maa ñëw remplir sama contrat mais guy man ñi ma doon àndal xam nañ ni man mii est-ce que dinaa sëgg bëre làmbaloog boo se boo dal Balla Gaye sa booy ñaa non ba tey li ma wax xam nga bombardier mm, moo fa am làmbaloog dañuy xasan góom bi fi muy wokk làmb dégg naa la Balla dafa bëri ak bombardier mhm. booba temps bi nekkutoon dix minutes temps bi quinze minutes la mhm. ñoom ñaar bëri na ñaari trente bëri nañ quinze bëri quinze muy trente ban mayaat leen pro ba combat ba match nii la mujje par avertissement la ko Bombardier daane Bombardier na bëggul lool recours la kay daane euh, def déposé recours ñu jox ko victoire ci jël bi mu ko daan lamb ja passé géejuwaay bi yépp takk rajo yi daa war a ñëw écrit ba daa ngi fàttali ko wax jooju premier janvier deux mille vingt et un Balla Gaye ba lamb ja passé coow la na daa war a ñëw guy gi la daloon Balla Gaye moom moo ah mais footum biir la mu danda. daawul non footum biir ak yëpp. say xale say rakk dañ lay laaj. xam nga tey bu ñu toogee ci télé bi waxuñu ko dañ daan ay naa fekk. waaw dañ ko bu ñu la waxalee tamit lu baax ba tey dañ la laaj. nekk école ba. góor yi may rakk lañ. góor yi Cheikh Super Jamono dégg ko Cheikh Super Jamono bi muy bëri démb. daf moo ko woo téléphone. encouragé ko dégganteeg moom wax ko la ma xam. ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen kenn ku nekk am naa lu ma seew mais pour ma ñëw école ba wala pour ñu def loolu footum biir xamul tax man école ba Mor Fadam du ma jox caabi ji et du du fu mujjee poussé bi xaw ma nu ñu koy waxee man ma koy. réer mujjee poussé mu réer. parce que Mor Fadam seede yi ma doon yëpp vidéo yaa ngi fekk yëpp a am xam ne nekk ak sa coin. Mhm. bu nga nee ba li ngeen lijjanti école yëpp am problème. Mhm. nga doog man maa mënul affiché loo xam ne gëwuma ko. waaw parce dem wax nañ ma ko ci benn émission bu ma doon laaj ñun ni lan moo tax gis Lac de Guiers kii ci diini yeeg booy yi man leen nga di leen waaw. man santiruma entraîner ak ñoom parce que amaguma jot gi tey mun naa forcer dem te li may forcer gëwuma ko Balla Gaye suma nit la bi muy dem xam naa ne mi ngi dem la dëggee suma bi muy dem xam naa mi ngi dem bi mu génnee kaso déggante nañ bi muy mm. jël arafas déggante nañ mais jarul manifesté wu ci nit ñi di la jël loo gëmul bis bu ma ko gëmee bu nekkandoo di nga xam ne guy gi mi gëm na li muy def. da nekkul en top. daa nekkul en non du reer. non non non bu ma demoon tey parce que entraînement bi ah, mais waaye dafa laaj. Mm-hmm. ma ko damay entraîné mais dama ko li ma gëm. li nga gëm dañ faa dem pour jàppale Liir Diagne. Mm. te man lundi la bi ma jour boobu àjjuma la waroon dem woo

Mm-hmm. man benn booy laa bu jógoon cana ba ñëw topp saa kajoor suma idol di ko nuyu yàlla dafa bëggal sama bopp lam fa nekk fa di def lu ne ku baax ñu ngi mm-hmm. dem ba benn instant nga xam ni yet yàlla euh, am na lu mu mën a jaar ci man mooy bu nit ñi defee nii boobu dañ daan wër Mor Faram kenn ku ne mu ñëw ci yow jox la ay kii mais moo Faram man la gënal ëpp lu muy waxal mm-hmm. ma xam ni ay trois cent personnes ñu ngi fii man xam chaque jour mu ñëw ci man di dóor sama biir bi dama dima kii kii am na lu mu gis chaque jour nag ma bàyyi loolu xel ak saar saar yi nan ma biir boo gëmee sa bopp di nga téye école bi. incha mhm, yooyu ma gën a motivé yooyu ñu doon def ci man nag du lu ma fàtte du loo xam ne dama koy bàyyi mu jàll mais loo xam ne danga koy téye la pour loolu nekkaat sa ginnaaw. li nga manqué bis boo ñëwaatee nga xam ne lii kat moo taxoon nga toog man cee xalaat mais da ngay jékki-jékki rek ñëwaat coow li am guy gi parce que am ñoo xam tey bu ñu sañoon doo dugg ci école bi mm-hmm. parce que ñun bëgguñu école bi mm-hmm. am nañu comme ni Balla Gaye àndee Lac de Guiers àndee nii am na ñoo xam ne am nañ goaatar mm-hmm. booloo bëgguñu booloo bëgguñu booloo am na ñoo xam ne mais Balla ànd ak Lac de Guiers loolu da leen di déranger waaw am am na am na ñoo xam ñii Lac de Guiers mais Lac te li ma waxoon keroog nee naa Lac de Guiers ànd ak Balla Gaye Lac de Guiers ci gagné Balla Gaye gagné ci géewaay benn mbër lañ bëgg muy Balla Gaye numéro 2. benn mbër lañ bëgg nga wax koo nga ñàkk wax muy Balla Gaye numéro 2. moom moo lay tooñ nga ànd ak moom ci tooñ bi nit ñi bëgg la. moo lay tooñ nga jàpp ko xuloo moom nit ñi bàyyi la. léegi nag boo ko xamee bu la ruuxee suuf da nga ruux suuf bu ruuxandoo moom ci kaw. <laughs> moo ne mel ci kaw yàlla ñu. Euh, eh. te boo ànd ak moom yàlla may na ko mën naa toog léegi Aliou Mbaye Diop Talla Mbengue Modou Fall foo nekk jox la de guerre 4 millions 5 nga jëriñoo ci combat bi am ngeen àndandoo ñu gis ko sawet géey gépp ñëw supporter la mais boo ko jaayee ni carrément nii laa mel moom booy bëree kenn du la toog loolu dama ko koy waxal te mm-hmm. nit ku mm-hmm. baax la Omar te loolu mooy àdduna Balla Gaye day toog ba yàgg woo ma téléphone mu ñëw kër mu jël xaalis bëri jox mu ñuy toog di waxtaan mm-hmm. tey ci mujj ñuy toog di ay jotaay yoo xam ni defe naa léegi mannequin lay defar kanam gi day dem yóbbu ko mënuma sa kanam gi dafa yàgg sa bëñ yeeg nanga nañ dem ñu changé la ma a ko d'accord boole maag waa ji ba fajiri ñoom su ma demee mën a leer booba tey maa ngi koy xaar dégguma ko gisuma kan koo xam ne suñu diggante ñun ñeent quoi mhm. amuñu problème ok xam ne daal géewaay suñu géewaay la ni ñu jugtee nii nañu ñaanoo incha allah dinañ ko terminer à très bonne bouteille incha allah combat mm-hmm. euh, combat yu am victoire yoo xam ni. Mm-hmm. ak sunu sunu lambalogue bi. Mm-hmm. communicateur euh, euh, traditionnel original. Ah, ak sunu boy incha allah ñu jël lépp de ren incha allah bu neexee yàlla. leeral boobu am na solo. seede itam rafet na noonu mu ko waxee ci waay ngir ñu booloo. day gën a rafet loolu mooy intéret làmb loolu mooy intérêt seen rakk ci seen ginnaaw mm. li mu seede ci bala gay deyit rafet na mm. ndeysaan sa kàddu champion la kàddu mm. ndaanaan la moo wax ci champion borom xol bu rafet kon moo seede ci borom xol bu rafet euh, am na solo mais guy gi ñu desit ci benn ponk wax nga sànq ni am na promoteur yoo xam ne ñu ngi bëgg sa combat mais yaa ni gars ñi nañ xaar ñu ko bëgg xaar bi ñett ñi man woo nañ mais xaar bi xaar bu jëm kañ lay doon guy gi fii kañ la envisage man comme ni ko moo daan waxee rek noo ko waxee ci fin kii bi fi mois yi. fin mois yooyu noonu dem fin mois fin mois yooyu boo ma jul mars wala fin saison xam naa laa jëm. fin saison nga jëm waaw parce que xam naa comme li ma la rek. Mm-hmm. parce que bëgguma mm-hmm. jëlaat loo xam ni. ut de baax moo ko doon jox combat. Mm-hmm. fin saison mooy août. parce que tamit wala 31 juillet wala 28 juillet mu génn bàyyi dëkk bi 4 mois wala 5 mois nekk ci bopp. xale laay xale laay Ah. xale parce que nag dégg naa fi combat mag lis non dégg naa fi combat mag lis te te léegi dégg naa xale lay bëral te léegi mu sotti léegi ñu ngi doon léegi mu sotti xale ko jëloon yóbbu ko ba dox bu guy gi defee retour léegi mu sotti xam tey comme li moo daan wax rek am na loo xam ne du ma ko nangooti quoi Ah. parce que tamit euh, li ma dese dafa bari te dafa am lu ma fi def. Mhm. dafa man ñi nga daan dee ci kanam man man slogan lu bëri maa ko indi. maa ko indi lu bëri maa ko kere. maa ci ëpp turandoo mbër ci mbëri. man maanaam sol jësneer bu bees tàq maa ko ñemee xotti xëy suba teel ñu jox ma ñeenti jësneer wala juróom. Mhm. man rek la. Mhm. man maay ñëw sol lu rafet ñëw estaat ma wala carrément làmba ma may lii te làmb laa koy dellowaat mën naa ko dëggal bi ñu dajee Tëngéej Mbaye Sakh Diop. yàlla yërëm ci foos ba. ci foos ba. ma ñëw tubbi suuf xool suuf omo suuf. ko suuf si tey ndax fii suuf moo fi foos moo fi sottee. guy gi dama Pape Aline dinaa ko def ndax samay supporters yi dëkk fii ma sottee ko suuf si moom la xaar te loolu la am ci fii tey. foos bi laa waaw waaw loolu kon moom daa bëri. Euh, waaw jawam dafa bëri ko def loo ba nga xam ne guy gi mi noppaluwul. parce que bëggul kenn mer. dëgg la dëgg la euh, waaw guy gi daana jar image bi waaw image bi daaw la yaram bi rafet ah, dañu ah, bàyyi Guédiawaye waaw ah, bi day dafa pays mooy maya yi bi muy ñëw neexut ànd pal kii daf maa bëgg ndeysaan bala ngay histoire bu neex Seexu Tijaan daf maa buy wax ak man sax xam ni kii daf ma bëgg dafa buy rek la mën a gis même bu ko man man maa koy faj loolu moom maa ma bëgg boobu mais nag man dama nit koo xam ni sama diggante moom dafa bëri ñoo xam dañ cee dañ dañoo def na mag Balla Gaye ay noonu lañ dañuy rayante fekk na woo xam ñu lu xew. Mhm. parce que man moom na Gueye dañoo dund loo xam ne nii Baye njaay bul comprendre. lu naturel ak nas. ak nas mais bu mhm. demee nii tey yow yow xamoo ci dara. Mhm. mais bu demee nii tey. séparé soo am. temps amul. bu Gouye Gui wax fii Balla Gaye wax fii su Balla Gaye waxee benn mot nga dem ci Balla Gaye def ni Balla Gaye mi ngi. yow boobu ëllëgee bis bu Balla Gaye guy gi toogee yow da rus. Mhm, mhm. te bëri ci booy nag. ñi ngi wàññeeku nag. mais mais est-ce que doo jekk saa yi toog xalaataat seetaan sa combat yi passé. fi nga nekkoon euh, ay Ama Baldé ay Ama que maanaam regret am day am mais mais mais nag da koy santaat yàlla parce que tey bu fekk am nañ mën moo tax ñu ma nekkoon lul géewaay gën maa ëpp ma. Ah, Elton Elton fu ñu dajewoon ci mbedd maa ngi moom rek bu ma bul julli bul daan nangam dama koy def te yàlla suturaal li ma def ci làmb moom man li ma def ci làmb wala li ma am am na ko tey te moom ëpp lépp sa idol sa kajor ana bu la ma saan jàpp loxo góos a jàpp bu jàppee loxo góos man damay kontaan bay jooy ah. dañ may xool may jooy ana mu tey kooku bu ma sa ana Abdou Diouf koy géej way jox ko cër ah. su ma limee sax dañuy yàgg na may salteel def ah. ay image yoo laa xam ne ñoo dàqoon na bëri géej way nag ku ko bañ ku ko bañ muy Sakho jot Omar Mouma. Sakho Dior Omar Mouma voilà ana Mouma sax. waaw ñoom ñaar ak yeneen yoo xam ne dañu war a. saa yoo déggee ne ñooy mbapat. képp kuy mbër di nga dem seetaani loolu. man xam nga ka gëm sama champion dëgg dëgg. moo tax mosu ñu bëri daan bi mm-hmm. may daan Mouma vendredi ak dimanche. Mm-hmm. waaw kii xam na li may dama ko daan vendredi daan ko dimanche. ci laa man waat damaa toog waat na dama damay champion mais instant yii nii est-ce que lamb dara diisoo. garaa fa ko tëkk. lamb gaa yi ko jaasit boo boo ko <laughs> yenoon. mooy ki gaañu mooy ki gaañu diwaan waaw waaw ñu ko daan wax mbana mbana nag bi mu gerdee ne guy gi a ngi rajaxe fii daa dem sa Ama Baldé féete fa <laughs> waaw yaakaar ne Ama Baldé day daan guy gi keroog la leen Ama guy gi booleeg <laughs> guy gi da kaa bëreloo ba mu lang mhm. ok moo ko merloo sa signature ba. boobu mhm. waaw waaw waaw kenn du ko laal kenn du ko laal mais mais kii guy gi est-ce que nañu xaaraat sa dernier combat Siteu parce que Siteu nga mujjee daan ci làmb 2018. sama ramage yi yàkkam xam ndax dama lay wax rek est que mën nañu xaaraat parce que. am na ñu la joxoon favori ci combat bi guy gi guy gi guy gi. bi nga sumee ko xaw nga maintenir non attends attends làmbalo. attends mais xam nga boo nee xaaraat. loolu day sori dama ne la Mouranta. Mhm. yàggul dara dinaa jël xale xale laay bëreel bu mu ñëwaat non waxuñu jël xale. Ah. ah pour mu ñëwaat est-ce que mën nga booy ñëwaat guy gi bu summeekoo ñu gis guy gi bu bëreewoon ak Siteu. waaw ah, léegi moom comme li ma la wax rek. parce que loolu mooy wax ji ah. man non. état boobu ndax bor nag. tey boo nee mhm. loolu day day da ngay cité. mais man bu ma ñëwaatee ba bëri xale dañuy guy gi mii dafa amoon lu nekkoon ci moom mais deñ na. parce que man bi may bëreeg yaa ko wax bi may bëreeg euh, kii booy ñëw mu daan ma dañ ne guy gi yàqul mais dama ñëw ci nas man ne ko billaahi wallazi laa ilaaha maa ngi dem États-Unis mm-hmm. su ma ñëwee dina am doole sama président parti na ma kii ngay bëri. te matul en 2017 2018. ma dem ma dem États-Unis wàcc. Bécaye Mbaye moo njëkk jël video bi. Bantamba. Mm-hmm. bi mu ko jëlee ne Siteu mu ne mënu ko demal nga wuti doole guy gi mii ma gis mënoo koo daan. ñu bëri mere ko. Modou an Modou Mbaye jël ma vidéo bi. Mhm. pour man dañ maa zoom wala nanga ma ne ko nii laa mel dama am course damay entraîné boo laa nekk sama course maa ngi am sama jokosik jokosik mooy ñooñu def lekk yi jokosik ñu ngi may jokosik nice. Hmm. xam li may lekk xam lu ma dul lekk di entraîné. Hmm. mu ne ma yow est-ce que lii eh, course bi yow réellement programme bu la tegal la wala luñ dindi sa yaram ma ne ko non dama daal damaa ñëw jox leen suma bopp. kañ ngay ñëw jour hmm. la si te ñëw Euh, estat am na ko doon muy bàkk am na ko doon bëri. si mm-hmm. Modou Lo moom bëri xaw ma. waaw muy bàkk naan na guy gi bégaay na ñëw. Mm, bégaay na ko tey rek guy gi dina ñëw bégaay daan si te ne la nga ñëw. Modou Lo la dëgër la woon. Ah, nag ci la ci la bégaay toogaatee ñu envoyé ko vidéo ban temps ba la wax loolu mais bi ma ñëwee Sénégal ba wàcc man su ma su ma wàccee su ma amee doole ci nas laa koy xam ne bu la xoolee day retendre. mais boo amul doole lii day xaw a aajo yu kenn xaw mais bi ma wàccee aéroport jël si ma laa ne alhamdulilah tous de bois. continué mm. suma entraînement ma bëggoon jëlaat beneen pois ci lay jékki na ma saa yaa ngi yokk ci laa ñëwee kii ki nekk olympique. gii gii coach gii ci la ma gii ci la ma gii la ma gii nag. ok mhm. sama poids ci ñëw bëri loolu si ta yi ñan la ñan la ñuy wax. waaw mais xam nga làmb ji yéen li fi am xam nga yow moom saa chaque jour ngay wax. ñaata promo boo ne tey yi. boo ne tey promoteur ñaari moom xam nga ko yow sax ñëpp nga xam mais ñaari moom lu gën a jege gën yooyu léegi soo nee promoteur yi na keneen kii ak xam promoteur boobu moo kii ah loolu nag dara liberté d'expression de non non ah Njaay balaa neex ñu somm mais mais xool man moom man man moom sant yàlla yàkkamti ma somm xam tax man maay sama sponsor bu njëkk te xam naa ne man promoteur yi maa ngi wax ak ñoom te produit bi te voilà te man produit di làmb laa mais est-ce que guy gi ma ñëw ñëw def soow yi def nii def nii def nii. jat fan sax loolu moom mënatul am fan boo xam ba la dëkk. mais a ñëw. jat mais Moussa Sène bu ñu la daanee day daanu boo daanee day daanu. xam nga léegi. jat mën naa loo koy wax mais léegi. taxaw urgent urgent boo xam ne guy gi mi dafa dëggal boppam parce que daa am loo xam ne man dama ko yàkkamti ci biir géew léegi. Ah. parce que lépp kenn mënu ko wax li li nga li moo daan wax xam moo daan dafa wax bu garaaw dañuy que boo seetaanee combat yi nga passé doo am regret uh-huh. Uh-huh. loolu day day des ci man ah des ci man gi mooy damay xam ni oh. jàmbaar am na loo xam ne man yow ñi la daan gëmuma ñu daan ñi nga daan yow non non bokkuñu ba pare niñ la daanee yow bi may daan nees waaw fan la jógee ci victoire Mhm, ci Papa Sow bu jógee Ama Baldé boobu doo ko laal lan daanuwul lan lan dafa bëri kenn Zarko ak Boy Kayre ci la daj ñun ñëpp Zarko boobu nees boobu nees boobu nees attaque am kenn ak Zarko. Zarko bi yàgg na Zarko bi yàgg na. non Zarko sax maamoon dañoo leeral parce que dama. yàgg na souvenir xaw ma trois souvenirs. waaw souvenir ngeen bëre bu daan la. la ma daan mu ñëwaat ñu leeral Zarko guy gi mën na kaa yenu mu ne du ko yenu. voilà man ko su ma la jàppee dama sànni ci dafa def daal yi loolu moo taxawal combat bi mais combat bi kenn tëgg ko woon lu ñuy waaj. maa nga dëgg moo ko taxawal dama lay sànni si wetu saabu yi maa nga tëggoon fay ma loon quatre cent mille. maa nga dëgg moo ko tëggoon ma jaay ko quatre bloc. loolu bañ a dégg daal ba ci combat am ak Amaneex foofu it boo xoolee Amaneex bërikat la la mu bëreeg moom. waaw boobu daa jógee ci defet bi muy bëreeg Amaneex. waaw boobu boobu man daan man daan man daan man daan problème ama neex nag bu ma juubul sa guy gi la mujjee daanu. non non ama neex non non. ci kii ama balde ak kii dafa raglos xaw ma raglos. raglos dafa daan ñu joxaat ko victoire bi. kan non moo daan lagros. waaw daan da koo daan ci biir géew. waaw mu def recours ñu jox ko victoire ci kii ama na est-ce que mujjut a daanoo ci kii. ama balde wala ama balde waaw. parce que booy bool. parce que dafa toog ay yées bëriwul. ama balde waaw. ñëw premier janvier 2018. la daan booy bool ama li mu toog bëriwul moo bari moom ama na. waaw daa toog. Mhm. parce que bëri woon na feek Moussa Dioum bu ma jum bàyyi ma njoon soriwu ko daal non soriwu ko ma jumul daal Ama Baldé ko mujjee daan mais nag mais daan ko guy a neex mooy bi ma nekk nii bi may dawal boobu bi mu tëlee porte bi si gazon bi non bii deuxième bi la yàgg sos bi ma dawal waaw bii bii bii bii laa koy dóor mu naaw Ah, mhm. bii la koy dóor mu <laughs> bii noonu ma ko dóor mu naaw daanul de. <laughs> mais leeral ba tey man daal nee na ba tey ñaar la am sa kaw. jëlal jat baa ngi door am na ñu muy bëggal kii daan na benn paa bu ma ne ak sa waay seen combat li mu ko jaral Baye di ko profité di nuyu waaw moom bu sañoon sos day koy biisa ak ak ñun suñ signature rek am na koo xam ne dara moom ñun suñ signature la yàkkam di ñuy ñaar waaw waaw di profité di gërëm nag sama sama téer bi Mm-hmm. fàtte naa ko sax te bu ma ñibbee juum ko fàtte baax la def xoolal njaxas bii ni mu booy walaay yéen ah, nag saw la sant mun ta bañ a baax pël bu baaxee baax na te Assane saw la mm-hmm. te dafa baax nekk si laa ma nag yàgg see dund amaana du mbër nag du ñëw mais téer boo gis ñaari lamb lay seetaan. lamb lamb daal xaaral li mën a wax daal mooy. Mhm. nañ ko gën a defaraat quoi. lamb li ñu ci war a defaraat dafa bari quoi. mais ci biir defaraat boobu CNG mhm. bu bees ñu am yaakaar. mënu koo defar ci sept mois. mais loo jàpp ni mhm. mooy priorité yi. ñu ci war a jiite priorité mooy. ñi jàpp ni ñoo fal Malick ñu bàyyi Malick liggéey. waaw loolu mooy. bu njëkk bi am na ci ñoo xam nii ah, fi doon nii ca guddi ga lañ woo Malick Mhm. naan ko mais non nangam nangam nangam nangam di mhm. bëgg a placer seen bopp parce que gis nañ def nañ vidéo gis nañ wax nañ gis nañ nangam nangam te affaire bi du foofu mhm. gis nga tey affaire bi daal bu ko